ku kuy werante samay wax rek da nga di gone kuy samay wax danga xamul li may wax waaye li may wax fa ma ko jëmale dañ koy xam ci ki may waxal dina ko xam fi ma ko adressé dina ko xam ñooñu nag ñooy yëngu léegi nag comme nu ma ko waxee du ma wax ak duma ma tonton teg ñu nekk ci suuf sama wax bu nekk dafa am lu visé sama jëf yëpp day day visé c'est stratégique man dox ku may nu may doxee stratégiquement laay doxee colonel Abdou Aziz Ndaw moo ko wax si Séné euh, euh, télé euh, télé Youssou Ndour bi <laughs> ba journaliste bi di reetaan booy la booy la booy bi booy bi nekk Canada bi moo laa mii mais il est plus renseigné que les généraux que les renseignements spéciaux TFM la ko waxee spéciaux ba journal ah xanaa ma ne mais moo laa mii moo ami yee déggoo lu ma la wax Macky Sall pare na dossier ba teg feuille am gars yi tàppel ko ko teg teg teg teg ba mu pare mu war a waajal pour changer pour pour pour yóbbu élection yi lépp ñu toog def seen réunion waxtaan ne dañuy jël élection yi arrière ko dugal Sonko préparer ko def dialogue def lépp dossier bi dañoo pare rek ma jot feuille bi karaj lire dossier bi ne leen samedi dina am Macky Sall dina génn day arrière élection yi live ci saase dina wax dialogue dina woote dialogue dina ko arrière pour jéem a xool nu mu dugalee Sonko dina ko nangam lépp ba mu jeex tàkk doomam Amadou Sall dégg live bi daw dem gis ko moom ne ko mais président papa mu ne ko waaw mu ne ko mais moolaa li muy wax lan la nee na yow da ngay génn samedi Amadou Sall ne papaam yow Mollah nee na da ngay génn samedi da ngay arrière élection yi da ngay da ngay woote dialogue waxtaan bi pour indi Sonko boobu wax boobu maa ngi wax dialogue yéen a ngi faat ne ba mu naan ay Sonko bu ñëwee pour mu ñëwaat nangam ak nangam ñii di wedd ñi non non bu mu ñëw même bu ñëwee nangam ñii nangu ñii ñii non day fen day kii bu mu ko waxee papa moom Amadou Sall papa ko moo laa moo wax loolu moo ne ko day fen dégg naa Amadou Sall doxaat dem dem ci gaay mi ne non moo laa day fen de sama papa nee na génnul samedi papa ji de moo soog génn samedi li ma waxoon fooyam bi moom la jël di récité dialogue na national arrière élection defaat lii mu indiwaat processus électoral bi lépp A sedd man fooy balaa liir mais xam nga papa ji du wax doom ji naan ko moo laa sama fooy bala sàcc déedéet papa ji renseignement généraux yi lay woo chef bi ki mu kiñ fa jëlee saaga ndayam na ko mais nan lañ def ba sama fooy bi fooy bi may waajal samedi te waxaguma annoncé gu ma waa ji xam kañ laay annoncé ak lan laa war a annoncé kii nu mu def kooku remonté renseignement généraux yi xool numéro yi amul ku woo moor ku mu jaar fan la jaare fan la dossier bi jaaree ne noonu lay demee te loolu lépp dama koy yëg dama yëg ni président bi woo na chef des renseignements généraux colonel ba colonel ba woo gars yi gars dem woo ñuy xool ni lijjanti boobu man maa ngi ne teg ne salaw mais li ma wax lu ma lay wax da nga koy gis lu ma la wax da nga koy gis lu ma la wax da nga ciy daj loolu rek moom moo ma ñor amul leneen amul leneen après boo paree nii nii laay demee naan sama café dox sama dox génn ci mbedd mi chaque jour euh, ñëpp ñuy dundee Canada xam na ni man chaque jour maa ngi si street bi fu may live ci mbedd bi leen di gis Mollah Mollah Mollah big up photo Mollah Mollah ñu jël photo Mollah Mollah star la Canada star star buy dox di màcc mbedd yi la star la Canada ba mu daj amul sénégalais bu ma fi gën a siiw Canada amul benn Sénégal même dama ne même le l'ambassadeur du Sénégal maa ko gën a siiw même fii maa ko gën a siiw bu génnee kenn du ko foto kenn xamu ko bu ma génnee sama buntu kër boobu fu ma jëm sénégalais bu ma gis maire góor jigéen mag ndaw dinga daw ñëw di nga daw ñëw taxaw di nga photo di nga snap di nga vidéo di def yépp ñii dañuy gaare di dawal seen oto taxaw ci tali bi freiné pep pep pep tubaab bi di xool parce que xamuñu fa ay ay ay cornet ndaka def man la ñuy woo e eh, moolaa ñii génne seen bopp jigéen góor moolaa moolaa mais moolaa ma gaari ñu photo loolu yàlla moo ko def nit mënu ko dindi yàlla moo ko def donc loolu ma xam ni yàlla moo ma ko def war na tax bu ma waree génn di leen wax rek dëgg kese dëgg kese bés bu ma bàyyee dëgg gii commencé di fen bés boobu laay cólle ne tant maa ngi sax ci dëgg ji nit buddi ma sànni du yomb donc les gars li ma leen di xamal daal mooy Ousmane Sonko li mu leen di wax ak ay dëgg di ngeen kontaan di ngeen bëgg seen xol dina sedd liggéey gi rafet na yanu na maanaa am na solo te mi ngi seen kanam di wax bépp patriote dalalal sa xel ci boo gisee nit jëlee guñ ko fa nanga dem ba xam ni kii ci ñoom la bokkoon da doon saaga Sonko jëlee guñ ko fa noonu lañ ko xamee ñoom ñoom ñi ngeeg liste bi te ñiñ fa bàyyi nalawuñu du lépp nag la ñuy wax chaque jour dama leen koy wax du lépp la ñuy wax ñañ fa bàyyi nalawuñu ko ndax man dama ci xam ay DG yu bari yuñ fa bàyyi yoo xam dañuy may gaayinoo mais man chaque jour dama leen di assurer ni munuma daara luy tax nga toog man moo laa moo gën bëri na DG yu liggéeyal Macky yu fi toog yu ma gaayinoo ci yàggul yàggul buñ ma gaayinoo matul deux mois trois mois je le dis haut et ko nëbb parce que yi rek ñoo ma ñor ñoom laa war a rendre compte amul keneen ñu ma gaayanoo yàggul te génneeguñ leen fa di ma woo di ma nemmeeku gaayanoo man mais lu ma leen di xamal mooy seen toog fii garanti wu ko munuma ko amuma ko te yàlla mayuma ko ku ma gaayanoo nag ma gaayanoo la ku wax ak man ma déglu la waaye aw ma possibilité loo fi benn du aw ma pouvoir bi aw ma possibilité loo fi benn nit une seconde loolu nay leer pour ñu teel koo xam parce que seen ñëw bu ñuy ñëw ma am ne dañuy buggu xëy na ma defaan leen wala ma waxal leen pour ñu toog fii wala nangam ak nangam non man aw ko aw ma pouvoir boobu nay leer waaye lu ma leen xamal mooy loolu lépp tiit moo leen ko indil ñoom ñëpp a ragal ñoom ñëpp a calculer seen tëb Abdou Karim Diop ak baaxum ak maaxam gis nga tekk ak tay gi ñu def nii dal gii ñu def tekk parce que alxuraan ñoo la gën a xam ni dañ fiy jóge waaye nag ñi ngi def lu ñu mën seen kéemtalaay kàttan bu bañ fi jóge ci mystique ñoo ngi koy jéem ca négocier ñoo ngi koy jéem ca jéem a jege parce que mënuñu jege sonko ci ñu jege sonko ñu jege leen wax ak ñoom pour ñoom ñu wax ak sonko ñu ngi koy jéem maanaam ñi ngi jéem pexe bu ne tooguñu nag tooguñu tooguñu de ñi ngi jéem sax liggéey ci temps bu ndaw bi pour mun fi toog donc loolu tamit na ngeen ko xam kenn ci ñoom ñi ngi doubler effort pour toog fi ñi ngi wax ak ay nit pour ñu wax ak ay nit parce que man nit sax jóge na fi bu ko jox benn waay xaalis autour de Sonko ñu ko jege mu nekk DG bugg fi jóge mu dem gis alentour Sonko bëgg a jël ay millions en tant que DG financé ko ñu wër Sonko yaakaar ni ñooñu am na kenn ku ci mën a dem wax ak Sonko pour Sonko bàyyi ko fi ba mu ñëwee di ma jox information bi ma ne ko boo ci dugalee sa xaalis da perte mu ne ma non assuré na ma non ma ne ko sawaay da nga fi jóge non ma ne ko waaw du nga fi jóge xaalis boo joxe dinañ ko lekk te Sonko dina la fi jëlee te Sonko dëgër na bopp xeetu dëgër bopp boo xam ni projet bi la jiital yaayam sax bu ko waxoon bàyyi fi kenn du ko fi bàyyi mu ne ma ma ne ko billaahi kon Sonko noonu la mel ma ne ko lu raw loolu dëgër na bopp benn xeetu dëgër bopp boo xam ni boo demoon ci yaayam yaayam ñëw ñaan ko danaa ko uhu mu dàq la mu ne ma ne ko billaahi la mel de yàllaa ko bindee noonu na dëgër na bopp projet bi rek la gis Sénégal la ko ñor bëggal na la jox leen ay résultats bëggul ko ko mere liggéey googu moom sénégalais rek la gis gisul keneen boo demoon ba ci yaayam wax ak yaayam dem ci sëriñam wax ak sëriñam dem ñooñu ñëpp buñ ñëwee daan la waaw waaw waaw buñ delloo mu def nu mu war a def kon nag boo fa dugalee sa xaalis da ngay perte da lay dàq de ma nga ma ne ko si da lay dàq de donc dalay lay dàq de dàq moom gisuma loolu loo mun a def bu dul dàq dàq moom dina lañ ko def moom dinañ la de wallahi daq nañ ko billahi daq nañ ko barke alxuraan dàq nañ ko wóor na daraja yi lësi dàq nañ ko ma nga këram toog bu ma gisee muy def passation de service bu ma xool photo bi ndeysaan <laughs> sa waaye waxoon naa ko lii de nee naa ko xaalis boo ko dugalee dañ koy lekk boo gisoon yaayi Sonko Sonko day bañ boo gisoon maamu Sonko day bañ boo gisoon nijaayi Sonko ngeen ànd yéen ñëpp ak yaayi Sonko ak sëriñu Sonko Sonko day bañ <laughs> moo xoolee ba gis ko ndeysaan passation de service muy joxante loxo ak discours bi ma seetaan vidéo bi ma ree waxu mag du fanaan àll day guddee nii laay def di wax ak sénégalais des fois non day fen day ak dañuy tourné rek gis marto bi dal seen ñoom taal si la sama nday seen bopp yoo toj nag ah, moo laa waxoon na ma toogee ne la après passation de service ba léegi woowu ma de tey sax a ah, sama xel joxoon na ma pour mu envoyé ko ma ne ko sali mais naka mu gaañ DG <laughs> ndem nekkatu ko nag ah, <laughs> foo toll ci mbir looy def xane xëy na dina wax lu muy def bañ koy fa jëlee moom ñëw na woo ma moom. ah man man kii laa xoomal lan man du ma sauvé du ma kii man gaa jëlee nañ mais du ma sauvé ma ah, d' accord d' accord doo sauvé <laughs> waaye daal lu waxoon joxe xaalis perte négocier perte yéen gaañ bi ngeen amal affaire. dara yitte lu ko yukkul sénégalais projet sénégalais kenn dëgër na bopp wow lenam ni konkorom sonko du dégg du dégg jat ngay ne gudul dégg lu ko ñor mooy sénégalais yi projet bi réussite totale sonko dina mandé carrière am ni ngeen foog ni sénégalais yi jaay seen bakkan rayante ngir moom sonko jël pouvoir bi di fo <laughs> sonko lekkatul naanatul nalawatul ndax pour satisfaire ñii ni ñii ñoo ko tere nalaw ñii ni ñi toog nii ñoo ko teree lekk ñoo ko teree naan ñoo ko teree nalaw ñoo ko teree tax toog ci ay soxnaam ñoo ko teree toog ci njabootam billaay ñii ku ñu fitnaal dootoo lekk dooto naan ñii nii ngay gis nii ku ñu teg cop dootoo tal sa ndey dootoo tal sa baay soo ko xam na loolu xam na lu ñuy daj ak lu seen ndey yi daj ak lu seen bàyyi daj ba teg ko fi xam na ko bu baax a baax te ñaanul yàlla bés ñiy weddi ko ñaanul yàlla ci dundam bés ñii weddi moo tax talul lekk talul naan talul nalaw talul jabar talul doom ma nga fa talul yaay ma ngi ko ci teg H24 H24 ñii défi buñ ko lancé <laughs> ay ay soog xam lu ko ñii teg ñii kuñ teg sot kuñ teg sot dee lay gënal dund ñii nii sama gars yi kuñ teg sot billaahi ñaan yàlla dee moo lay gënal nga dund di am gàcce ci seen kanam <laughs> ku xam sénégalais yi rek <laughs> buñ la sosee dara bu yaay ñëwee sax dama ragal nga këdd ko te doo ko yëg bu lañ buñ la sénégalais yi dara bu yaay ñëwee ak yaakaar bu ñu am ci yow bu yaay ñëwee boo deful ndànk bunt bi ngay tëj ne ko bëgguma ko gis papa ñë bëgguma la dégg <laughs> man na sénégalais kuñ teg choc di nga xam ne ñoom rek koy dund keneen new fii loolu nag Sonko xam na ko xam na ko bu baax a baax a moo tax sànq bu génnee rendre lu ma compte rendre duñ ko ko sax laaj moo lu ma compte journaliste rendre lu ma compte politique man sénégalais rek ko ma <laughs> ak xam luñ ko def ak xam fuñ ko ak lu koy xaar ak xam fuñ ko yóbbu ak a xam luñ ko sas tàllu kenn dégluwul kenn kenn déglu ko du politique du journaliste du kenn sénégalais yii ñoo ko tere lekk tere ko nan ñii tere ko sax toog ay njabootam wala nekk ay soxnaam sénégalais yi ñu ñoo ko ko xañ kon moom xam na bu baax ñii fuñ koy xaar xam na bu baax ñii ci luñ koy xaar moo tax moo ko rek <laughs> voilà moo tax jomaa it nalawul jomaa it nalawul de barke alxuraan nalawul lekkul naanut nalawut lekkut naanut kon nag gars yi comme nu ma leen ko waxee rek mbégte moom di ngeen ko am incha allah ngeen concentré wu sur l' essentiel focus leen sur l' essentiel yaakaar bi lépp ki ngeen ko dénk kan la laaj leen ma kan la du Jibi Gueye Ndiaye du du du Mollah Morgun du keneen seen yaakaar yëpp ginnaaw yàlla yaa ngi nañ ko wékk ci Sonko Diomaye donc rek boo leen amee ay compte laaj leen ñooñu rek ngeen xaar leen dégg ngeen voilà moo tax man ci biir géey njaay bi nekkuma ci quoi parce que dénkuma ko dara sincèrement dénkuma ko dara bu ko neexee na naan ataaya ak George Washington Bush bu ko neexee na naan fu ko neex ataaya bu ko neexee na ree na daanu na kaf dénkuma ko dara <laughs> ñi ma dénk dara ñii sama bët bii jomaay la sama bët bii Sonko awma beneen heure laa takk nii comme yu fas yi Sonko Jomaay Jomaay Sonko bu ma yeewoo bëccëg Sonko Jomaay lu Jomaay wax lu Sonko wax loolu laay wëri lu Sonko wax allo lu Sonko wax lu Jomaay wax ñoom Jomaay eh, waxi Sonko ak Jomaay rek laay lijjanti yéen bii bët bii dama koo dénk Sonko moo tax nalawatul nga xonk coy bët bii ma dénk ko Jomaay nopp bii ma dénk ko Sonko nopp bii ma dénk ko Jomaay jaxaran nii laa def taluma leneen Jibi Gueye Ndiaye dénk ko dara lu ma ko wax toon ko dénkuma ko dara dara dara du du ministre du député maanaam xamuma ko sax xamuma ko xamuma ko ko quoi lu ma ko wax dina ma ne sa waay moo laa tooñ nga ma de loo ma dénk loo ma dénk <laughs> loo ma dënk ku ma war a nuyoo ku ma war a kii lu ci sa moo laa loo ma dénk yaa ngi may tooñ di dénkuma ko dara dénkuma man dénkuma ko tus bu fekkee nag waa Pastef dañ ko dénk dara waa Pastef mun nañu wax ak moom mais man bokkuma Pastef kon mënuma dugg ci débat boobu waa Pastef bu fekkee ñoom dañ ko def euh, maanaam ci seen parti waa Pastef mun nañ ñëw ne ko sa waay lii bëgguñu ko parce que ñun ci Pastef lii nga fay représenté te kii dafa def lii wala kii dafa def lii dégg leen ma dem la part des chose nag man laay def débat bu am dama ci wax sama xalaat dama ne was wasuli sama àq dama ne waa Pastef ñooñu bu fekkee Jibi Gueye am na lu muy représenté ci seen parti mun nañ ko woo rappel à l'ordre na ko bëggeewuñu nii ñun parti bi duñu doxee nii ñun parti bi ñu waxee nii ñun parti bi bëgguñu lii ñun parti bi li honoré ñu loolu waa Pastef la parce que ñoo ko dënk seen dara mu am poste bu mu fay représenté mais man comme bokkuma Pastef daraay Pastef du ma ci dugg damay nekk ci ma patrie aw ma parti ma patrie moo ma intéressé patrie sama patrie kese donc vraiment di wax ni Jibi Gueye Ndiaye aw ma lenn lu ma koy wax ndax dénku ma ko dara dara dara mais nag partem mun nañ wax ak moom gis naa partem di wax ak moom am na waa partem bi ñi ngi wax ak moom ñoom nee nañ mënuñu gis ni ak lépp lu Antoine ñàkk jom def Jibi Gueye Ndiaye di kaf ak moom di ree ak moom <laughs> ñoom waa partim la am nañ ñu nekk foofu euh, man bokkuma fa donc ñi ngi wax ak moom xëy na bu ëllëgee bu ko gisee mun na bañ a defeteeg nii ak moom parce que waa partem am na waa Pastef maanaam am na ñu ci kontaanu ci nu mu kottanteek kële mais loolu waa partem lañ bëgguma ci dugg quoi sincèrement bëgguma ci dugg dañu nañ nekk rek ci ay débat yoo xam ni yu national nañ nekk ci ay débat nationaux nekk ci ay vision nationale nekk ci vision wu maanaam waxtaanee lu ñu bokk ñun ñëpp voilà en tout cas man moom man bu ma gisoon tey jii euh, lu mu tey jii ñàkk jom bu ma ko ñuusul <laughs> du ma ko nuyu man parce que en du ma am ci moom ndax ñaawteef fii mu fi def ndax naqar gi mu ma teg ndax fen yi mu nekkee woon Antoine bu ma ko gisoon dinañu àttee dina tal siiñi bëñ wala ay ñuus dinañu àtte ko loolu moom man man gëm naa ni bu ma tasewoon nag la major Fall wala Antoine ñàkk jom dinaa leen ñuus ko wala dinaa xeex ak ñoom te xam naa ni maa leen mën dinaa leen ñuus fu suñu bët dajee man ak Antoine dinaa ko noq noq laa ko noq fu sama bët dajee ak Ismaïla Madior dinaa ko noq loolu moom man maa leen ko assuré dinaa ci def sama kéemtaay kat fu ma sama bët dajal ñeente ak bu ak ki nga xam ne moom mooy Antoine ñàkk jom dinaa ko ñuus parce que dinaa ko saaga ndey nii na ko bàyyil fenku ku nangantaan sa ndey nga ba mu kii ba mu mu jóg mu dóor ko hypercute nokk ko ba toog ci kawam puudar ko sëlam ko koloj ko xoj ko mu ma dajeeg Ismaïla dinaa ko noq loolu moom leer na léegi nag am na ñoo xam ni am na koo xam ne boo dajeeg moom du ko dóor am na ñuy sénégalais yi dajeeg ñoom duñ leen dóor am na sénégalais yi dajeeg ñoom duñ leen ñuus mais man bu ma dajeeg ñu dama leen lu ñuus quoi pour muy leer non bu ma dajeeg Ismaïla dinaa ko ñuus quoi tons loolu moom day leer am na sama tons buy expliqué nii bokk ak sama yaay nday baay nee ma non non fils leer bu ma dajeeg Ismaïla Madior dinaa ko noq quoi loolu loolu takk leen ko téere bu ma munee na ma na dóor mais bu ma dajeeg moom dinaa ko noq ba toog ci kawam bu ma dajeeg Ismaïla Madior Fall wala Antoine ñàkk jom dinaa leen dinaa leen noq quoi dinaa leen noq noq yi métti boobu ëllëgee ñu bàyyi fen ñu bàyyi ak di wër di wax dëgg Ismaïla Madior Fall Antoine ñàkk jom Sidiki Kaba Aïssata Tall Sall ñeent ñii ku ma ci dajal dinaa la ñuus na ngeen ko takk téere Ismaïla Madior Fall Antoine ñàkk jom Sidiki Kaba Aïssata Tall Sall ku ci dajal dinaa la noq doo demee noonu ku ma ci dajal sañu bët ñeent di dinañ raak voilà kon nag les nekk leen ci li nekk ngeen wóolu gouvernement bi bàyyi leen xel te xam ni ñi ngi ci liggéey bi te seen xol dina sedd seen xol dina sedd seen xol dina sedd incha allah seen xol dina sedd bu soobee yàlla kon gars yi di bëgg ci yéen kontaan ci yéen rek amuñu lenn lu ñuy wax lu dul euh, di leen ñaanal rek yàlla defal leen jàmm ngeen fekke lépp ngeen fekke lépp lépp lépp lépp lépp incha allah bu soobee yàlla voilà hmm. en tout cas euh, vidéo King Fahd Palace bi yegg na fu mu war a yegg gars yi jot nañ ci xam nañ li may wax jël nañ xamal nañ ma tamit ne nalawuñu foofu laa yem xam nañ ni Aline Badara Tall Sy qui est un frère à Racine Sy mi ngi fay liggéey te moo occupé retraite la dem moo occupé achat yi King Fahd Palace loolu xaw ma ko woon <laughs> moo tax sama gars yi ak ñoo yor bagage yi <laughs> moo tax ci laa noppee de ma ne sama gars yi bu may Racine ñu ne ma mais Mollah yow yow yoroo liste gars yi sax man leen ah ñu ne ma non du ñëpp nga yor waaw yaa ñi ngi dégg nga naan Père Mbow directeur eh, d'exploitation kii licence yi ñëw ma laa am na tur yoo doon wax ma la laa xam nga alin Badara Tall si man leen déedéet ñu ne ma ma nga fa ma ngay liggéey King Fahd Palace et il est en retraite mais moo occupé les achats di King Fahd Palace jënd bi lépp lañ fay jënd di indi man leen ah. xam ngeen booy ñëw bëgg di bëgg a fen di bëgg a fen ñoo xam ni saa waay dañoo toog ci bagage nu may def moo tax ma lem ko ba mu ron <laughs> lem ko ba mu ron ne wuyu ma maa doon wax rek maa waxoon waxeet maa doon maa doon jaay mën a wax maa doon jaay mën a wax ba toog ci ay waxkat ñu ñoo xam dañoo toog ci wax ji xam lépp ne tekk noppi pare naa ci bay ñëw di wax bañ lay xamal ña fa nekk nag ñoo xam ne yow yow sax xamoo koon man sax man dama mu ump woon ñu may xamal ñeneen ñeneen <laughs> buñ jógee asalaay ba ñëw ba jóge asalaay ba ñëw ba dem pale jóge pale ñëw king fat bañ fa toogee équipe bañ fa indiwoon ñëpp dem ñëpp a dem ñëw nañ benn moment ñu tasaare leen ci king fat bi ñu lijjanti fa lu luñ fay lijjanti lépp ñu wër gouvernement bi yëpp ñoom ñëpp seey nañ kenn nekkatu fa kenn <laughs> sama gars yi nag ñëpp a seey fat jamono ji à part le président de la république ak njabootam kenn desu fa kenn desu fa ñëpp a seey ñu seeyal nuñ leen indilee toog nañ fa ay une semaine deux semaines waat nañ leen fa dànk ñoom ñëpp delluwaat nañ seen kër gars yi <laughs> loolu ñooy mag de ay Racine Racine gars yi jekku nañ la nag chett sa lobby bi <laughs> sa lobby bi puissant <laughs> gars yi jekku nañ la de gars yi dañ la téye ci loxo nii dañ la tënk ci loxo téye nii di la xool ngay lappi-lappi ba léegi rey la ba léegi rey ñu la ñu ngi la téye nag a deux cent pour cent ci ndigg lañ la téye ci ndigg ngay ci ndigg ngay lappi-lappi <laughs> ay ay sama ndey mu ne ni moo te mu foog ne moo téegal gaynde saa yu paree King Far génn dem xam nga en face King Fat foofu la Amadou Ba dëkk mu dem ci Amadou Ba di ratatati wa pa pa pa pa non pa pa pa sama gars yi nee nañ ma ñi ma fekki nee nañ ma ah, gars yi xam nañ lépp def tekk tekk loolu la fa bàyyi nag boo dee nit war ngaa xam lan la ak sa frère ba nga fa indi ak sa jabar ja <laughs> sa ñaareel ba ma nga ca ma nga ci hôtel ba di liggéey ci hôtel ba di encaisser ci hôtel ba mm-hmm. waaw sa ñaareel ba bu jur sa seex ya ma nga ca hôtel ba di liggéey ca hôtel ba di encaissé ca hôtel ba sa frère bu retraité ma nga ca hôtel ba di liggéey ca hôtel ba di gérer achat ya lépp nga miine say nit ak sa sa waa dëkk teg leen gars yi xam nañ lépp lépp lépp lépp nañ lépp renseignement yi dugg nañ fa noté lépp jox gars yi gaa yi téye teg di lu xulli nag à l'œil ngay lappi-lappi <laughs> xamoo dara dama lay wax ne yow meeg yuy enseigné Madiambal Diagne xamoo koo dara xamoo dara toogal xaar toogal xaar voilà donc gars yi bëggee magoon ndamoo tiitaro incha allah bu amee leneen rek nañ leen ko wax waaye daal lu may tax a jóg tey ma tax ma def live bi mooy di leen dalal seen xel di leen xam ni di leen wax ni di ngeen kontaan di ngeen bëgg seen xol dina sedd ci nguuru Jomaay Ousmane Sonko ñi ngi ci liggéey bu doy waar liggéey bu mucc ayib ay résultats yu am solo yu leer naññ tegoogum nañ mais xam naa dafa am lu ñuy xaar lu ñuy xaar lu ñuy xaar pour boucler ko jox leen ko loolu nag waxuñu ma ko maanaam li tax ñuy xaar parce que luñ ma won man nee naa leen lii loo leen di xaar pour teg ko fa ñu ne dañu am lu ñuy xaar xëy na complément la ñu matal ko dóorandoo leen lépp ay xewali xewali xewali xewal lépp yomb ci yéen dëkk bi naat dëkk bi neex ngeen gis beneen àdduna bu soobee yàlla incha allah te ñaan nañ yàlla nag fekke loolu tamit ñu ñoo koy fekkee ndoo de ñoo koy fekkee ndoo de parce que ñu nit dañuy ñëw foofu di jëfandikoo loolu ngeen di jëfandikoo xewal gi ma gis nii ñaanuma yàlla toog fii ngeen koy jëfandikoo moom ma toog fii damay ñëw ak yéen ñu nekkandoo lekkandoo ko sëqandoo sippendoo logandoo ni mugg incha allah bu soobee yàlla li ma gis du ma toog fii ñu ma koy nettali maa ngi ñëw ak jàmm ak salaam ci lu yàgg dara comme ni ko ko waxee lu yàgg dara ngeen gis résultat résultat yooyu balaa génn danaa ñëw Sénégal toog ak yéen ñu sotti ko ci palaa bi ñu sëppandoo sippeendoo logandoo mu ne muggu incha allah bu soobee yàlla nay leer mboobu moom du doo leen ma ko nettali de dégg leen ma bu baax doo leen ma ko nettali li ma gis du yéen a ma koy nettali dañ koy lekkandoo dama ciy lekk par force <laughs> dama ciy lekk par force jëfandikoo ci par force nay leer donc gars yi bëggee màggal ndamoo tiitoro pisal la man daal maa ngi fa xaw ma kante cakas bin bin bi léegi rek yàggatul dara dara dara dara dara dara dara bàyyoo fi booy affaire bi déglu leen ma de Sénégal dina dina ñëw dina jax aéroport yi dina fees tepp tepp tepp bay tuuru oto yi dinañ corné cakas gin-gin gi dina yëngu réew mi dina yëngu télé yi nag fu nekk ni ñi ngi rang ku ci nekk naan exclusivité di wax sama grand woo na ma nee na ma jox ko exclusivité euh, euh, kii lu euh, mu tudd maire de Guédiawaye waaw sama grand woo na ma nee na ma moo jox ma exclusivité bi voilà yeneen journaux yëpp taxaw nañ ñëpp ngi taxaw tele yaa ngi taxaw dama ne càkkas bin bin bi by force mi ngi nii leer naññi aéroport baa ngi fees tepp ak doomu aadama yi foofu ngi xumb barrière yaa ngi ñuy teg càkkas bin bin xotti jaar ci digg bi gars yi di tëb di naaw di salaxu cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas bin bin xoolal Mollah du muy dugg biir Sénégal cakas bin bin cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas na nañ par force kenn mënu ci dara nix naada noonu lay demee incha allah lool kay leer na bu ànd ak nit nag cakas bin bin bu nar a bëri doomu aadama yi taxaw incha allah te yàggatul dara dara dara dara dara dara leer na naññ c'est le dernier réglage ñi ñëw nag fekkee bu ñu yàq bool bi bu ñu yàq bu ñoom Ousmane Sonko Diomaye di yàq incha allah dina fekk voilà parce que seddale moom taamu naa ci kuddu njëkk ya kon peace and love and I'm out à bientôt allah jaaraama